garaawul fi mu jàpp nañ la sama na fàccee. Ah, ok am ah, problème mais bu dul gerte jox rek. waaw ma jox ko booy yónnee tamit ne leen kii nan ko fi baax. yii duggoon sama ñu duggoon sama contrat yëpp ko delloo. dañu sama gaañ nga. dama la wax rek dama la wax rek. yow eh, am beneen question. mais man kañ laay laaj. yàlla ban la. diaspora bi dernière question bi desoon pour ñu poser ko. Gris Bordeaux mu ñëw dernière question bi na ñëw lan la Gris Bordeaux dafa mel gars yi ko muy sa diggante ak Lac de Guiers numéro 2. Lac de Guiers numéro 2 nekk l'un des rares lutteurs ci kaw VIP comme yéen ñi ci kaw ñoo koo nga xam ni yéen ñaar leen bëre waa alu làmb yàgg bëgg seen combat vraiment bëgg yéen ñaar ngeen sëgg bëri ñun leeral xam Gris Bordeaux ak Lac de Guiers numéro 2 mooy daan moroomam mais dañoo am benn remarque bu ñu def Gris Bordeaux à chaque fois bu ñu ko waxee waxu Lac de Guiers numéro 2 du ci sawar. ñu bëggoon xam nag Lac de Guiers Gris Bordeaux dafa am problème personnel ak Lac de moo tax nangul bëre moom parce que dañuy remarqué que ni Gris Bordeaux même boo koy waxu Lac de Guiers ci sawar du tudd sax turam bëriwumaa kooku bëriwumaa kooku ñu gis fi Lac de Guiers yàgg laa topp mën nañ dem na 10 ans dem na ba jël t-shirt ko ci Gris looy ragal mais à chaque fois dañuy gis da ngay rester sur la défensive ñu bëggoon xam ndax da nga am problème personnel ak Lac de Guiers numéro 2 boo nga xam ne mënuñu ko wax moo tax nga décider ni doo bëri ak moom. répondre non loolu loolu Lac de Guiers kenn mënu koo bañ ci làmb peut-être promoteur moom ma ko mosul moom ma ko mosul la de Guiers xanaa ma su ma doon bëreeg moom nga gis combat ba mosul gis. Mhm. ah. tax. non parce que ni ñuy bëree naa bu ñu doon par A B li nga bëgg di koy gis. ci xeer ba pare c'est à moi c'est à moi de faire le combat man maay def combat. booy bëreeg Lac de ah. mais Lac de souvent ku bëreeg moom yaay def. non dégg lu ma la wax bu bëri doon bëreeg man bu ko neexee da day bëri. bu ko naqaree day bëre. Hmm? par A ou B. yaa dirigé combat. waaw dégg lu ma la na taxaw na tax comme gars yi dañ ne mën nga ko daan. Hmm. même bu taxawoon tey par A ou B dina bëre su ma doon bëre hmm. moom. na taxaw rek bañ a bëre. dina bëre bon phénomène bi am nag jël deux combats trois combats. non loolu loolu mooy loolu mooy làmb làmb mbër na la mën toog toute une toute une année benn combat. jaaduwul. 365 jours mais mbër mbër benn année. nga dem bëri ci benn bëri ci benn yoon toog. et puis tamit bu bu leen fàttee les jeunes espoirs booy yi nekk ci ñu kanam tey da booy boo xam ne tey nii dem na ba benn instant amatul yaakaar ci làmb booy yu bëri tukki nañ je suis en train de recenser plus de trois cent et quelques eh, espoir boo xam ne tey nii booy yooyu làmb da leen yaakaaroon mais tey dañuy toog ba pare. Eh, non non bàyyi ko mu yëgale tam pour bàyyi Gris Bordeaux yëgale waaye tam pour bu Fadam yow tam bul bul tàgg Gris quatre combats sax mbër mën na ko jël. waaw négocier ko avec un bon parce que ça te permet. yow pare nga fi ñu toll pour. si man parce que bëri na ay promoteurs yu may euh, yoo xam ne ñu ngi may. posé ah mooy li mu doon wax sànq waaw d' ñu on de Lac de Guiers. mais ñooñu ah, nga hmm? am en de mire. pas de ñoo fi nekk man amul problème man bokk naa ci mbëri ëpp adversaire ci làmb ji. Hmm. mat rek. am nga aw ma problème boobu. ngir booy bi li mu wax dafa am solo de. léegi kon mën nañ xaar sa digganteeg Boy Niang xaar sa digganteeg Lac de Guiers numéro 2. si nee la promoteur bëri na Lac de muy wax nii xam naa dafa am mu ko def bëri ñu ma ko ñu proposition hmm. mais Boy Niang ci Boy Niang lañ njëkk lañ a. gën a focus quoi lañ lañ gën a focus quoi. mais loo gisee monté wu xale yi. mais mais loolu mooy làmb làmb mënuñu làmb il faut que les jeunes montent pour ñëw fekk ñu fekk suñu parce que loolu mooy làmb ji. Hmm. loolu mooy làmb carrière ñett la dangay bëreeg say morom bëreeg say mag bëreeg say rakk. say rakk say rakk nag ñoo la fii jëlee. waaw tey rek mais ça dépend rek ah. ah si bëri noonu la mos a dem. waaw rakk yee fiy jëlee man moom nee naa la loolu suñu kanam la nekk. booy ñooñu fiy jëlee ou pas. Mm. est-ce que xalaat nga bëri ba quarante cinq ans sans avant nga bàyyi walla nga arrêté wala da nga bëgg a dem ba mu sës. non sport euh, fekk sa yaram yaa ngi koy yëg xam yaram yaram la yaram. sa yaram yaa ko moom yaa ko xam mais yow fekk yaa ngi yëg sa bopp tey ci préparation fii bëri na fi ay ñoo xam ne tey bëri nañ âge ñu am ci làmb nii tey bu ñu lay waxoon ni nangami at lañu am soo ko bàyyi bëri da nga c'est pas possible. si. fekk naa ko billaay wallaay am na ci ñoo xam cinquante cinquante plus de cinquante xam la mais grand yi mujjee bëri yëpp bëri nañ cinquante ans ay tubaabu joor ay mànga bëri nañu plus de cinquante ans ñi ngi ça sa morphologie ak sa hygiène de nga am xam nga kii dafa am avantage waaw Gris nga xam ne que combat ak Ama Baldé mooy doon première sorteem ci xale yi. waaw loolu lu xel la. lu jar a bàyyi xel te grand compte pour dafa xew donc man jàpp naa ne. nag mag ñee gañeegum. waaw te man mag man jàpp naa ni. ñoo gañeegum même ay ñoom Franc ak ci ligne de mire Gris Bordeaux lañ bokk. ñëpp a bëgg bi Bombardier taxawee moom lay taxawee xale dañuy bëgg. di ak a bëgg si ak mm-hmm. foofu sàppali baal di laqal sama lañ ci yow. Eh, gaaw leen mais dama am benn problème. waaw. quel est le problème de Gris Bordeaux avec les quatre appuis. non lan la lan la qu'est-ce qui se passe réellement. non je je suis devenu un poids lourd parce que tamit bon un poids lourd un poids lourd la. man tey man tey non. man man dafa dafa bari quoi. non quatre appuis te day day a. lu ñu war a négocier xool ko dindi ko ci làmb ji la. mais dindi woon nañ ko fa ñu gis. non parce que dañ ko dindi dañ ko dindi dañ ko dindi dañ ko dindi indiwaat ko te waxtaanuñu mm-hmm. dañ ko dindi làmb quatre appuis dañ ko indiwaat ci làmb ji. Mm-hmm. permettre ñaari mbër yi ñuy bëre di raam. mu nekk lu ridicule. Mm-hmm. gars yi indiwaat ko. je donne un exemple de quatre appuis. y a des actions yoo xam ne boo koy entamer il faut nga sukk si maanaam il faut nga il nga sukk dem. ma tey mënuma tey man mënuma jox victoire man sama xel nangul loolu sax tey ñaari mbër di bëre benn mbër bi xob ko mu def carte ab yi nga yëg c'est du n'importe quoi. dafa yomb non du du du sport c'est pas du sport loolu. nga def leen action ngay bëri ci biir bëre ci biir bëre waa ji njattu la man mën naa comprendre un quatre boo xam ne le lutteur est derrière son adversaire mu def quatre appui nga xam ne kii da nga koy nekk fa toog foofu mu toog. nga xam ne il est en danger face à l'adversaire non waaw mais ça veut dire que tey loolu waxtaan la parce làmb ay borom xam-xam rek ñoo fi nekk. d'accord ci. déedéet parce que xamul tax circonstance yi moo dul benn c'est différent tey un lutteur nga féete ko ginnaaw mënul protéger wu nga koy dóor te loolu c'est des c'est des c'est des yoo xam ne c'est c'est c'est catastrophique. nañu àtte pour parce que waa ji jógewul foofu mën nañu àtte yëkkati loxoom parce que mënul bëre. muy def quatre appui waa ji nekk ci ginnaaw mënul protéger wu waa ji nga koy dóor te coups yooyu c'est des coups fatals et c'est pas bien parfois sa mbër bi juum sa dóor ko ci ndodd mm-hmm. ci doq mm-hmm. te loolu ay séquelles lay indi foofu mën naa comprendre ni kat waa ji mun nañu parce que daf fa mu nekk moo baaxul ñu yëkkati loxo mais nga ma jàkkaarloog yow arbitre sifflé mal xob la nga nga na bërët ñu yëkkati sa loxo nga ñibbi mais yow yow mi yow mi jox ndam loolu ndam loolu sax amuloo boo sañoon du demee noonu mm-hmm. parce que c'est pas du mérite moo tax man la carte appui lu ñu war a revoiraat toog waxtaan ni carte appui nan lañ koy mën a yëkkatee di ko jox nit victoire je te donne l' exemple de combat Yékini Yékini Gris daanu naa ci loolu Demba Diop Demba Diop un combat très attendu bëre daw jël waa ji waa ji daw arrière dóor ma tànk mën ci enchaîné door ko ay rafaal ñu yëkkati loxo amateur yi du ñëwoon di charge am ñu leen quand même laaj na débat non c'est un vrai débat laaj na débat un combat bi attendu un combat boo xam ne noonu ñëw tey loolu ah, euh, amateur bu ñibbi moo xam Yékini nga faral moo xam Gris Bordeaux ah, sama diggante ak kontaanoo parce yaa ngi doon seetaan combat boo xam ne combat bi nga doon xaar mooy Gris Bordeaux bu pare événement woon Yékini bi ma sukkee noonu mais yow lim sa contre Balla Beye numéro 2. combat combat Balla Beye mais dama ne la sama defee di wax nii. dama ne la sama defee di wax ay parce que xam nga tax ma laaj ko loolu. xam xam la moo tax. xam la moo tax. man xam la moo tax may def carte appel. Mm-hmm. je suis un lutteur offensif man combat du ma ci tappale. Mm-hmm. je pouvais faire comme comme comme les comme les autres lutteurs. lijjanti taxaw fu ma taxaw je suis un poids lourd. Mm-hmm. su ma taxawee ne du ma kenn mënu maa maa dàq défendre maa dàq a défendre ci mbëri laajal booy sparring partenaire yi may bëre su ma taxawee ne du ma bëri kenn mënu yëngal. mais jomm naa tey mbër jomm naa tey un promoteur fay ma xaalis damay bëgg lu may lekk mu lew. un combat je me défonce. arbitre sifflé ma xeex ak yow poids la la moo tax poids du ñu bëgg di di përëm përëm përëm nii. dañuy bañ sukk dañuy bañ. déséquilibre poids lourd day gaaw a sukku parce que boo demee trébuché wala ñu njuuy la sax nga sukku. loolu moo a samay kàddu je suis pas un tricheur. mais tam daan nga ci mbër ci noonu en fente ko mu bërëngu. benn benn combat la mooy sama combat Bombardier te léegi ci xeex lañ def max moom. moo tax man la ci kaw waaw waaw ci xeex moytu ko yooyu yooyu. mais tey man tey mënoon naa def comme mbër yii. saa yi poids lourd laa te am naa direct bu normal. taxaw fi ma taxaw c'est pas toujours le cas des des autres poids lourds. Hmm. loolu yow la c'est spécifiquement Gris Bordeaux. mais attention waaw man maay parce que damay. voilà non non donc tu tu peux pas prendre ton cas personnel. pour l'ériger non non pour pour est-ce que yow d'accord nga ci yow. déedéet non d'accord nga ci xam nga lu dama la kàlla d'accord d'accord d'accord d'accord c'est lui Gris Bordeaux qui a ce problème. c'est pas le règlement. mais c'est pas les autres qui ont le, ce problème. c'est pas les autres a wax. c'est pas les qui ont ce problème. donc moom il peut pas xam nga gis ne lii arrangé wu ko. mu dem en en proposition xam nga lu tax ma intervenir c'est pas ak Gris Bordeaux du seen bopp mais dafa yàq lamb ji nañu xam ni quatre appuis dafay yàq dafa yàq lamb ji léegi am na loolu de xam nga moom non néew ma ñu jële ko fi ah, mais comme ni ko Gris nekkul ma mag fi jële ko c'est-à-dire boo defee quatre appuis yàgg fa toog fa ñu jox la défaite mais waaye nag ay quatre appui yu gaaw. quatre appui yoo xam ne li ko dal ci kaw dal bi mu dal ko ci yëkkini. quand même quatre appui yu waaw ah, ah, waaw amul dara daa wër ni ndomba. tiim ko mu yàgg fi di ko eh, dugg ay points. Eh, eh, dafa daan. Ah. déedéet dama ne loolu bëri la waroon doon. dañu waroon continuer. non si parce da ko njëkk parce foofu da ko njëkk jàkkaarloog moom dañu war bëree xam fan la waroon. rëg dafa waroon jóg dañu waroon jóg parce que foofu

c'est pas aux Américains de nous dire que c'est comme ça qu'on doit le dire c'est vrai su fekkee yow da nga am ce complexe là tu le dis su fekkee da nga am complexe boobu tu le dis non pas ce complexe les Américains ont leur ont leur sport eh, nous on a notre sport c'est la lutte Babacar la lutte eh, Babacar mais nag Babacar non non non man eh, Babacar Babacar toi appui toi tu te tu dois te Babacar Babacar oui le Babacar Babacar Babacar des Américains veulent veulent veulent voilà dafa personnaliser la chose alors que c'est pas ça. mais le règlement on le fait pour tous les acteurs. pour CNG tous non non non non non du question CNG. yow loolu c'est ah, terre à terre. cette discussion là ça n'avance pas. Ah, cette discussion là ça n'avance pas. mais mais ñun on est dans le am na avis. moom am na avis moom am na avis. non am na avis Ah, en début d'émission en début d'émission xam boo ko bëggee boo ko bañee parfois nànk soo ko bëggee soo ko bañee soo ko nangoo soo ko nanguwul parfois tu te comportes comme un membre de CNG hmm. loolu moom loolu moom mënoo ci dara ah dama la déglu ma la wax dama la gis nga non dama la loolu amul ay non da nga may déglu yow yaa may déglu non waaw déglu naa la mais loolu mënu ko ko xam nga mais bon problème mu 4 appuis mais foog ñu xam ne 4 appuis jële woon nañ ko fii ah foofu bëggoon naa ko deux fois moo tax ñu indiwaat ko fii. mais eh, la. mais dafa am dafa am dafa am ay dafa yoo xam ne dafa am ay règlement yoo xam ne dafa am ay règlement yoo xam ne ah, dafa sensible ah, ba nga xam ne bu ñu koy bu ñu koy waxtaanee. Ah, bu ñu koy waxtaanee il faut impliquer les lutteurs les acteurs. non waaw déglu ma rek. si ah maa ngi toog. waaw Iba Mar Diop. voilà ban ban non y' avait des lutteurs nga fóon y' avait des lutteurs bi ak. voilà dama lay te maa toog te yàlla na ko yàlla yërëm mais loolu na. Ah, waaw yàgg na waaw eh, il faut mais nag attention li mu wax nii il na yàgg na waroon nañu changé affaire bi. bëri na bëri na Alifa Alifa xam nga une précaution bëri na bëri na loo xam ne tey soo leen koy dogal. et eh, déglu leen il faut impli il faut impliquer les acteurs. acteurs yi Khalifa man li ma xam ci làmb ci biir bëri man en tant que acteur xamu ko man. ci biir bëre laa la wax. da wax lu la neex ah, ok. Ah, yow da wax lu la neex. Ah, ok ok la. maanaam tey da ngay wax lu laa la wax bëre bëre laa la wax. da nga xam dara si làmb yow. man xaw ma kii kii capital expérience bu muy wax. yow amoo capital vécu la laa la wax. moom amu ko. non yow Gris Bordeaux kii bu dee ñaari fan sax bëre na ko. sax bëre na ko yow ci xam nga ko ci làmb kan man kii lu mu xam si lam li mu xam ci lam ci bëre. non techniquement laa la wax nii. techniquement techniquement laa la wax nii kii. mun naa ko denc sama poche. ah man maa la wax loolu man ji ko man maa la ko denc sama poche débat la boo xam nii. giri boo la denc la lamb ju ñu war 6 mois. Eh, ñu ñëw mu jeex gàllankoor bi giri ah, taxaw et eh, ba ba booy et eh, Fadam. merci et booy pose cette question. man je suis entièrement d' accord avec. ak Gris ak man. parce que xam nga lu tax. ah nga jël say millions def ko ci lamb. lamb boo ko di tëgg tey oh, amateur yi ñoo tax. lamb boo ko dee tëgg az ah, Fadam ma ma ñëw tuuti lamb boo ko dee tëgg tey amateur yi ñoo tax. te chaque jour nga dégg ni amateur yi ne. amateur yi ñu ci perte dafa war a jóge ci az xam nga tey xam nga tey nga tëgg làmb def ci say millions amateur bi ñëw dagg tikkeem bee dix mille francs quinze mille francs ñaari ñu xaar làmb ji di ci xaar bëre di ci xaar xeex mu ñëw jeexee ci quatre appuis bu bu bu bu doy waar amateur yi mer ñibbi loolu neexul quatre appuis dañ ko war a jële ci lamb ci lamb franchement mais mais mais mais c'est pas parce que yow loolu débat bu yàgg la c'est-à-dire ko fee sulli tey rek. la mais débat bu yàgg la. ba biraa ñëw dafa war a denc ci làmb loolu débat la bu leer. parce que xam nga parce lii ba bàyyi baal la muy wax. mais vraiment préparé sa kaw mais ba. Gris Bordeaux am na ñetti défaite yoo xam ne. ba ñetti défaite sama sama quatre-vingt-dix pour cent défaite yëpp la. parce que xoolal ni ko Balla Gaye daane. ni ko Yékini daane. kon kon le cas de mooy tax ñu. Ah, déedéet non non le cas le cas de Gris Bordeaux. non non non non non non ah, ah non non. Euh, amaatee c'est pas objectif. benn ah, mais laajal laajal Tapha Gueye numéro si dernier combat nga nga nga bëgg a àtte nga ni ko nga ni ko nga ni ko nga ni ko Tapha eh, eh, Gueye numéro 2. Tapha eh, Gueye dafa nag Fadam Babacar ak Gris Bordeaux xam nga ne mosuñu jiboo. dafa nag duñ jiboo mukk. non non kii sama gars la de. ndax Babacar amul problème amul problème. non non Gris da koo mere pour toujours. non non Gris mënu ma ko mere mënu ma ko mere kii mënu ma ko mere mais dama bëgg a xamal ni euh, tey dafa am ay euh, dafa am ay règlement yoo xam ne c'est des règlements sensibles. Mhm. boo xam ne il faut il faut toujours impliquer les acteurs. la eh, dem ah. feneen. loolu yàgg na eh, balaa ñu ah. dem feneen sax. il faut toujours impliquer les acteurs. acteurs yi boo leen impliqué wu. lii Gris di wax waaye Babacar dama bëgg nga déglu ko. mais mënul koo fexe fexe la déglu naa ko pour moom. non non man déglu na. de la fi booy mu supp rëppeelu mu am victoire Tafa Gueye numéro moom laa lay wax. du victoire non non na ni mu jël la. Mhm. xam na Balla Gaye 2 daa daan Gris Bordeaux. Mhm. d'accord na lu. Mhm. Yékini dafa daan Gris mais dama ni façon jël yooyu. lan amateur yi jooju perte. amateur mooy ñëw fay xaalisam. te kontaan naa kenn yore di jooy. Albuquerque rek tax koo jóg. États-Unis ñu jóge jóge ay Italie ñu jóge fu ne loolu waxuñu ko pour. ñu ba CNG mën na ah, non non man waxuma ah, waxtaan suñuy suñuy suñuy waxtaan <laughs> suñuy waxtaan il faut ñu suñu waxtaan bi la bokk galas ay ca galas xam nga Guiré li muy wax ni dafa dafa important ba mu ëpp man dépassé na ma man parce que moo fi indi protestant waaw VAR bi moo ko réclamé euh, supporter mooy wax non du supporter <laughs> déedéet amateur la avant amateur la avant supporter kii du kii du kii du supporter de kii c'est mon ami sa moom a ko tere léegi frère ah, kii weesu naa supporter ci moom kii sama xarit la waaw sama seex la sax. sa seex la jumeau. ñett ngeen ko. ndax Pape Cheikh bi mu demee Italie maa ngi moom a fi ne. Ah. ñu ñëwee nag léegi ñu nekk ñetti pat nag. ngeen nekk ñett mais xoolal Gris vraiment ko pour moom. c'est que Baba Babacar mi dama gis mu koy sànni xeer boobu ba léegi. surtout membre de CNG il est là en tant que membre CNG. Ah, non nit a. yóbbul attaque non dañuy waxtaan cest à xam nga man. genre Gris Bordeaux yi ëllëg ñoo war a teg bokk ci ñi ñi xëccoo nekk ñi. El Hadj man du may sol du may sol ah, protège dent El ah? du may sol protège dent. kenn sol ko. maa ngi bëre ko trente mille francs. waaye. parce que avant may def làmb doon naa def yeneen sport. yaa ngi ko président benn mbër sport solu président. président mën naa di ko sol di wax ak yow. am na ay mbër yoo xam bu ñu ko solee fii bu at bi làmb ji amee deux minutes ñuy noyee nopp di noyee bët. parce question d' la. <laughs> parce que tey je donne un exemple man bi may ñëw sol président trente mille laay fayeeku ci làmb ji mais parce que j'ai vu am na ay anciens mbër yoo xam ne dañuy ñànk bëñ dafa cher. fii am na fi ay ancien mbër yu bëri ay kat bëñ lañ ñàkk. amateur bu nekk États-Unis as bi kay bëgg a wax. ah bu tudd Père Mala Baye boo xam ne moom Double Less daan ànd. si xam nga indi problème. parce que tey dañ koy tëdd buur dañ koy tëdd ne ko maanaam ñu ngi koy nuyu. buur bu maanaam tey. Ah, Fadam appuyer quoi Fadam. su da ngay wuti doole. dafa ñuy dugal ci débat boo xam ne day wuti doole day wuti doole. mais eh, maanaam ñu ngi lay oh, nuyu. booy tey jekk nañ la non tey faram làmb dafa bëri lu dafa war a defaraat. waaw je donne exemple. man bi may sol président. Mm-hmm. maa ngi fayee ko parce que j'ai vu ay mbër ay anciens gloires yu perte ay ñeenti bëñ. dañ leen ko jël ci làmb bëñ ça c'est coûteux bëñ dafa cher. dafa cher. ban sport de combat comme que judoka basketteur mooy sol président man may recevoir ay coups. à main à main nue main nue et puis sax yow biy dóor et puis je donne euh, tey man je vois anormal. un lutteur avec main eh, nue. Eh, yow sa ah. combat dama lay benn affaire dama la loolu déglu dama lay benn exemple. sa combat Eumeu Sène déglu ah, loolu la ko ñàkk loo taxawu ko. waaw ah, déglu ma la sama ñaari baaraam yi dafa dama ci biir. combat bi ñaari baaraam yi ci biir combat bi. solo ñu ngi faj ñu ngi faj Eumeu Sène. dama ne la mais su ma ko su ma ko su ma ko wane woon léegi ñu arrêté combat bi. jox la defe sama baaraam yi da doon yëngatu ci biir. sama ñaari baaraam yi sama baaraam yi dafa lunku. yow wuyu ma bul ma jaxase Babacar <laughs> ba pare ba pare ma yëgal na affaire. non man amul jaxase de. <laughs> parce que li may wax dafa amul jaxase. loolu ma je suis à l'aise. Bécaye amul jaxase Bécaye on doit protéger les lutteurs. waay Bécaye. d'accord na MMA. gën a violent làmb ah, foofu. Hmm. mais day sol ay gants. gants yooyu mbëri war nañ ko utiliser. yooyu mën ngeen ko sol dañ koy sol war nañ ko sol. parce que amul tax. du la tey jàpp ngeen bëri na ay mbër. ci da ngay jàpp. da ngay jàpp parce que xam nga baaraam yi. ga gants yi fii la. la quoi Mhm. boo dóoree dina baax ngay dóor du ah, boo dóoree doo gaañu. Euh, faram bëri nga. Mhm. kang nga dóor kang barki xalifa Mali boo fa dóoree kurpañ waxuma la mën nga dóor feneen di am am li nga bëgg. Mhm. mais gis nga kang boo fa dóoree kurpañ. billaa yow mi yaay gaañu. coono bi yow mi yaa koy yëg. xanaa nga dóor ci ay mâchoire ak ay. ay ay flex ay yooyu femme mais boo dóoree ci bopp. boo demee tëdd sa kër boo yeewoo doo nelaw. ndax loxo loxo bi kon on doit protéger les lutteurs. mais ndax moom Gris Bordeaux li ma lay laaj yow hmm. benn point bi boo ko laaj as bi kay. waaw mooy ndax kàddu gi ngeen war a am ci CNG bi. en tant que ay lutteurs ndax yéen yéen a fi bàyyi CNG yéen a fi bàyyi promoteur yéen fi bàyyi. et eh bi bàyyi leen di ko commentaire. non mais xam nga nag Babacar. bu eh, ah, tontu non kii boobu la la rafet nga daan koo. déedéet nga posé question. c'est non non question boobu nag kon yow. c'est mal orienté c'est mal orienté. amul nga xam waxtaanu bi maanaam tey il est là en tant que membre CNG. moom loolu ñëpp xam nañu ko